mais maag Malick Gakou ba yowmal xiyaam maag Aziz Ndiaye ba yowmal xiyaam Aziz daf may dimbali di ma dimbali di ma dimbali ba xëy yóbbu ma ci yonent bi bi ma yóbbu ci yonent bi toog na un gisuma damaa toog rek sama téléphone sone Aziz ni ma da dem dem màkk bàyyiwuma ci leen ba pare bi ko yàlla mayee teraanga dafa wëlbati ku ñëw géejawaay boo doon dagg lépp lii bul ko dagg ay 40 tonnes ceeb la indi ci biir géejawaay te waa géejawaay am nañu ceeb am nañu diwlin waaye nag dafa xam ni rek fi la juddoo fi la yaroo yaayam ju baax ja ñu koy xujj Jóob ak baayam ji di wax alaaji Ala Ndiaye di ko xelal rek lu baax Aziz du bëggul ku ko dunguru Aziz du ànd ak kenn mooy dawalal boppam kon Aziz ñu ngi ñaan man de gisuma yàlla mais yàlla maa ngi lay ñaan nga yokkal ma fadu Aziz mu dem ba naax yàlla maa ngi lay ñaan nga continuer ma mayal Aziz man de bu doon sama sago sama wërsëg da nga koy wàññi jox ko Aziz samay fan da koy wàññi jox ko Aziz lu ko nar dal yàlla na ma dal ku ko seetaan sentir ko ni li ma waxee loolu laa gëm baax na ku ko sentirul sa problème la baay baay gis ngeen bye bye di leen jaajëfal bu baax a baax ci wasaare làmb di leen jox dig daje euh, ba beneen yoon di kontaan ci moom bu baax a baax ci dalal bii mu ñu dalal tey ndax yombul woon waaye ñoo ngi koy kontaanee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér yaram di jaajëfal sama cameraman bu ñaawal bi Adama l'infatigable jaa ngeen jëf ba beneen.